heavyweights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 Dakar dafa jote ab kologam bu ñu naan em ja ci noonu la ñu jàppante raag-raag bu metti ci la ko em ja daa di jàppee daa di koy lapp ba muy gisi buy ci noonu bu ñu leen attee ndekete em bee faal moom bàyyiwul pour venger wu ci defet bi mu am nag ci em ja mi ko jàpp duma ko duma yu metti ci ëllëg si daf ko fekk mu toog mu bett ko daa koy xëpp acide ci kanam gi ak ci bët yi ëskëy ma ay kenn xamul fu muy yem ci noonu la M Dia daal di utee certificat médical bu vingt et di porte plainte ki nga xam ne ni moo di MB Fall bi mbir mi teeree ci loxoy yoon nag MB Fall atte nañ ko daal di koy daan ci wàllum coups et blessures volontaires ak wàllum bëgg a faagaagal dundu nit tribunal flagrant délit bi nekk ca Louga daal di na koy condamné weeru kaso <laughs> waaw góore way ma ne fitna baaxul moo tax ma ne jangoro dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew xew ca ngeexoox jéggi na dayo ab l'accident bu metti moo fa am ñaari camion ñoo fa mbëkkante ba am ñu ci ñàkk seeni bakkan oh. cëy l'accident yi ma ne ab camion bu doon transporter suuf ak ab camion bu malien ñoo fa laalante ci saa si benn sofooru camion bi ak ab apprentem daa di ñàkk ci seen bakkan beneen apprenti bi am ci ay gaañu-gaañu yu metti bi ñu koy évacuer ci benn district sanitaire moom it fa la ñàkkee bakkanam la tali bi nag li muy def ci ay jëye maara de taali ma ne mënoo toog ay ayu te déggoo ay l'accident yoo xam ne ay bakkan bakkani bakkan dan ci root ma ne mooy la mag ma waxoon rek daw ndànk dal ndànk daw bu baax dal bu baax ma ne oto yi ni ñuy dawee ci kaw tali bi jéggi na dayo laa wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca Cees doy na waar juróom benn téeméeri kilogramme yu cocaïne la fo woy takk der yi teg loxo ci diggante Somone ak Ngàpparu aw law mbir mi mu ngi xew la 13 janvier bi weesu nee ñu nag ba Cees dee Cees bees ba tey xayma bu toll noonu ñu teg loxo ci wàllum cocaïne di drogue boobu kenn musu ko faa teg loxo li yolof njaay naan guleet waaye nag nee ñu ba fi mu toll tegaguñ ci loxo kenn <laughs> waa loolu moom doy na waar di fi mu ne nag ab lanket ubbi nañ ko ci ngir xam ñan ñoo moom drogue boobu <laughs> ma ne du ñu ñu ndaw de juróom benni téeméeri kiloy cocaïne ña moom du ñu ndaw moo tax ma ne baax na rek réew mi léegi drogue bi nim duggee maara dee Italie moo tax mane ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la ca Almadi doy na war bi njiitu réew mi tegee état d'urgence ngir xeex ak mbas mi nga xam ne mi ngi faat ay bakkani bakkan ngir teg ay pexe yuy muccal nit ñi ci mbas mi ma ne ci jamono yooyu ay jigéen yu am jëkkër ay diplomate ak ay doomi borom daraja ñoo dajaloo ca almadi di gundaandaat nekk ca la neex organiser fa ab piscine party parti bu rëy ay way samba violé état d'urgence bi teg ci créer rassemblement boole ci mbir mi nag comme ni ko presse yu bari waxee wul noonu gars yi violé wuñu couvre feu bi ndax mbir mi mi ngi xew vers 17 heures te it ña fa nekkoon toll nañu ci 46 personnes fi mu ne nag li leen yoon di toppee mooy wàllum rassemblement ci période bi nga xam ni dañoo teg état d'urgence moo tax it ba leen fa gendarmerie bu ngor fekkee teg na ci loxolu toll tollu fanweeri nit fekkoon leen ci seenu piscine party am na ci ñaar ñoo xam ni ay doomi ancien ministre lañu kay teyit way takk der yi du piscine party boobu dong lañu fo dakkal bis boobu ci waxtu yooyu balay boori 18 heures arrêté nañ fa ab feet ci wet gi bu impliqué juróom-ñetti nit te nee ñu ñu ki leen yoole seenub dëkkandoo la li gën a ti nag ci yëf yi mooy ñaari doomu ministre yi ñu jàpp dañoo am jàngoro ji di corona pëtë law ndax ñoom ñaar dañu waroon voyage yi naka noonu la defee ay test gannaaw ginnaaw piscine party bi nag bi leen yoon tegee loxo ci biir kaso bi la leen résultat yi fekk ñoom ñaar ñëpp ñu positif oh. ba dañu leen foo mujj jëlee yóbbu leen ca hôpital dalal jàmm te am na beneen daam bu leen fekk ca dalal jàmm bokkoon ci piscine party bi ndax moom it dafa am jàngoro jii di corona wóop ma ne mujj gi ña fa nekkoon ñëpp dañu leen mujj boole quarantaine moo gën a wóor de réew mi daal da ngay waaru dañuy teg état d'urgence mbaa ñu teg ak loi nit ñi di ko fooye moo taxit mbas maa ngi ray de ma ne nañu gën a takkaat jaj yi te moytu mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz.